moom la ko Serigne Touba di liggéeyloo te muy liggéey boo xam ne ba sëriñ bi ñëwee jamono ba niñ ko noppee gis xëyam yépp ci la ko daan xëy ñem yar ñépp ci la leen daan yar mooy fexe ba doomu aadama ji li ko indi ci àdduna mu matale ko te waajtaayu wépp jëm yomal xiyam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 ñee ngay dégg ñëpp ci centre soxna roxee bu sa lañ bàyyi ko nee na moom àggagul fa mu ko bëggee nee na yéen a wax ay matériel lu ñu doon jëndal waaye ñiy créer site internet yi di defar télévision yi di defar ordinateur yi ay doomu adama képp lañ ca xam-xam doo nga leen ko may nee na xam-xam bu mel noonu moom la def ci am xelam ndax Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Mouhamadul xaa waxoon na ne université bii daa bëgg fii ñetti junni ak ñu raw ñu raw ñu raw euh, raw Iran